jii nag jëm ci projet de loi boobee soxal wàllu amnistie Sud Quotidien daal di xëy fësal ci xëtam bu njëkk na lee député face à leur responsabilité député yi tey jii nag la ñuy xam fan la ñuy taxawee jëm ci njéggal gi nga xam ne rek président Macky Sall fas yéene na koo taxawal ci biir réew mi jëm ci ñi nga xam ne rek ñoo doon faat doomu aadama yi ak di yàq seen moomeel ci diggante 2021 jàpp 2024 ngir bañ yoon daal di daanu ci seen kaw marche sur cadavre et débris loolee la l'observateur xëy daal di dippee nag procédure bi nga xam ne rek fas yéene nañu koo wote ci ab boo xam ne rek dafay daal di faase lépp loo xam ne rek moo jëm ci ñaawte fi ñu doon amal fii ci réew Sénégal mu di mbir moo xam ne rek bu ñu sukkandikoo ci l'observateur ñii di victime yi nag duñu ko ko baal mukk ba ilaa yow mi diin Khalifa Sall ak waa PUR jamono ji ña ngay wane seen taxawaay parti démocratique sénégalais ak waa ex-Pastef ba fii nag nanguwuñ caa wane seen opposition des ba tey ci lu jëm ci loi amnistie boobee nag ak parti bii di ex-Pastef nga xam ne ba fii ñuy àddoon nag newuñu waaw newuñu déet bés bi le jour ne Birame Souleye Diop ak ay ñooñam jamono ji nag bi la ñu maye daal di maandu ci wot gi nag waa PUR daal di wote contre Birahim Seck nag di àddu jëmale ci ni nga xam ne rek noonee la waa ex-Pastef doxalee ci loi bi nga xam ne rek doon nañ ko càmbar ci ab ne li nu mel daal am na lees waxul ju ci nekk waa awale di ko ñaawlu ba noppi di acte de trahison professeur Amène Ndiaye moom di leeral nag lu jëm ci révision bi nag jàpp ne dàq na bu yàgg nag lu jëm ci loi bi nga xam ne rek moom lañ bëgg a taxawal ci biir Sénégal lu mu ne rek moo jëm ci projet de loi amnistie bi nag tey jii daañu ko amal ci assemblée nationale coow li nag fi mu toll nii nee na combay tension bi nga xam ne rek moom moo daal di am jamono ji ci vox populi nag commission des lois bi démb lañu ñu ko daal di woote taxaw ak waa PUR nag daal di fësal bu baax a baax nag seenub ñàkk ànd ci boobe loi député yi ex-Pastef nag dañoo maandu ci wot gi nag kenn xamul fu ñu féetee ba tey lu jëm nag ci waa ex-Pastef yi nga xam ne rek ñu seenub taxawaay ci loi boobee ñu bëgg amal ñeel amnistie Walf Quotidien mi nga cey dellu suwaat nag anam ba ñu ko doon càmbaree ci ab commission des lois yéenekaay bi ne bu ñii di ñaxtu ci côté bii nag yeneen député yi moom patt gi la ñu daal di mayee gëmm seeni gët nag ci crime yi nga xam ne rek moom la ñu daan amal fii ci réew Sénégal jëmale ko ci kaw askan wi Birahim Seck nag ne fii daal jaaxal na ko lool ca laaral gi nga xam ne rek waa Pastef am nañ ko jëm ci loi bi nga xam ne rek moom lañ war a wote fii ci réew Sénégal réew mi jamono ji nag xar na ñaar ndax député yi Pastef nag sës nañu leen ci miir bi Les Échos yëglekaay addu ba tey jëmale nag ci plénière bi ñu war a amal niki tey ji jëm ci projet de loi bi indi amnistie bi ñu bëgg a taxawal fii ci réew Sénégal yéenekaay bi ne démb député yi ex-Pastef nag yooyu ñu yàbbi jëmale ci boobee loi ñii di waa taxawu ak waa PUR képp ñoo woote non loi boobee nga xam ne rek moo jëm ci wàllu amnistie Le Quotidien yëglekaay nag mi ngi ñuy xamal ni Macky Sall jamono ji nag ñépp bàyyi nañu ko ak boppam waa taxaw ak waa piir nag ña ngay sàkku nag ngir ñu bañ a woote boobee loi ne député yëpp daal di taxaw nag ànd bañ ngir ñu daal di koy taxawal fii ci réew Sénégal Parti démocratique sénégalais nag jamono ji ñu ngi ci tànk waa addu jëmale nag ci conseil bi nga xam ne rek dem nañu seeti ji leen ngir lu jëm nag ci date bi nga xam ne rek moom la ñu war a amal élection présidentielle yi ak lu jëm ci candidature yi nga xam ne rek dañu leen a rëkkale woon mu mel ne la ñu tënkoon nag ca jam ñaajo waa conseil constitutionnel dañu ko xooti tareet ci yëglekaay bi di enquête conseil boobe ëmb juróom-ñaari sages nag doxalee nañu mode fast track jëm ci diire bi ñu war a amal ngir élection présidentielle yi ak mandat bu njiitu réew mi nag ñoom juróom-ñaari sages yooyee nag daal dinañuy wane seenub taxawaay ci ñàkk boole candidat bi di Karim Wade ci élection présidentielle yi ñu war a amal fii ci réew Sénégal réaction bu pale nag fi mu toll nii moom la ñëpp di xaar jëm ci taxawaayu conseil constitutionnel wax ci wàllu tàggat yaram ak réew mi sport mi ñëw tey jii nag ci footballeur sénégalais yi nga xam ne rek ñoom ñooy ëpp li ñuy fayeeku yéenekaay bi ne Sadio Mané moom jiitu na leen sànni karawaas bi daan leen jël bu kenn dootul laam-laamee stade yëglekaay dellu siwaat ci ligue des champions bi nga xam ne rek ñu ngi ko war a amal nag huitième retour yi àllarbay tey jii nag Real ak City nag fas yéene nañoo jeexal liggéey bi tey jii à domicile wax ci sunu lamb alburax events nag daal dinay jox avance tarkinda Siteu moom jamono ji nag ma ngay xaar combat bi war a dox ci diggante Gris ak Ama Baldé fanweeri fan ci weeru juin bi ci lañ ko fas yéene amal jeexale yëglekaay yi ak lu doy waar li ñu fekk ci libération mu di ab gendarme bu am ñaar fukki ak juróom moom nag moo jël ab fetal daal di koy tiire ci bopp bi mbir yi nag mi ngi xew ci guddik dimanche jàpp altine moom esnam ab gendarme bu dëkk ca Thiès nekkoon en service ci LG Mbao moo daal di xaru laata moo def lu ni mel nag yónnee na ay message